gis ngeen waa Sénégal gis ngeen ne terrain eh, Macky Sall bi ñu baaxoo mu ngi nii fii caaroy sam-sam fii de na pan pan bu rëy pan bu rëy tiital na waa caaro gi yëpp tell gi moom fotol la koy dégg mi ngi nii daal mi ngi nii mi ngi nii depuis ma 30 train baa ngi nii yëpp tell gi moom foo toll da koy dégg xaw ma lu mu paat nag baa lii dina mën a àgg jam ñaajo mën ta paase caaro yi baa dina àgg jam ñaajo